ああ。 La waa wa parcel ñu ngi leen di Santé ci accueil pour les leaders de la coalition Yewwi Askenwi. Wi di leen wax li les leaders wax le 31 juillet c'est-à-dire dans 4 ou 5 jours Yen Yen a libérer Sénégalais Sénégal définitivement de la gouvernance maléfique et monstrueuse du président Macky Sall. Vous savez le 31 juillet président Ousmane Sonko le président Deche le président Khalifa le 31 juillet Djouklen à 5 heures du matin dem au niveau des centres de vote une affaire affaire ma affaire nous sommes au courant nous sommes au courant que nous préparons un vaste système de fraude avec les lettres de mission Les may je dama koy répéter et que je l'assume Vous permettre qu'elle nous ngeen xamul lettre de mission du voté que

Nous am doole dañu daan may tànk Macky Sall bu ñëwee dañ koy may tànk nga xam ne am na avance te du tere danañ ko dooro dooro dooro dooro dooro ba le 31 juillet bu leen ko c'est une date le 31 juillet bu leen ko c'est une date qui doit être marquée dans l'histoire politique du Sénégal le 31 juillet nous avons wax fii ci Sénégal dinañu bind ci histoire politique du Sénégal que c'est le 31 juillet que pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal cohabitation en Sénégal Macky Sall d'autres amati pouvoir ci réew Une affaire le 31 juillet ngeen di régler définitivement la question du troisième mandat Si vous ko dooree ba muy bëgg a dee amatul choix dama ragal sax de du eggali mandat le 31 juillet vous, les jeunes da ngeen di amis d'hommes, da ngeen bëgg am jabar da ngeen bëgg am lii raam su ngeen ko bàyyee mu muy homosexualité Sénégal kenn du fi tuddati góor ñi ñooy sëy seen biir jigéen ñi di sëy ci bu ko le 31 juillet vous avez l'occasion de changer ce pays bu leen kenn nax je sais que kenn mënu leen nax wax leen seen papa yeeg seen yaay yi bu gen xëyee yéen gi tok toog wax leen seen papa yeeg seen s'en yi jàngatu leen wax papa yeeg seen yaay yi fajootu len wax leen papa yeeg seen yaay yi liggéeyatu wax leen seen papa yeeg seen yaay ñu yërëm leen jàppale leen yéen ñu voté la coalition Yewwi Askan Wi pour nous jële définitivement ce régime sale moribond mauvais et méchant du président Macky Sall alaikum wa rahmatullah